Je euh, Mamadou Kassé directeur du SICAP Nous euh, am la dalal une émission amul Nous euh, le projet de 000 logements que le président de la République lancé le SICAP ñu xam ko ci tabaxum projet ci logement. projet bobu lan est ci SICAP ak ban rôle Amadou ginnaaw bima nuyo nuyoo téléspectateurs yi nga xamantene ne ngi ñuy seetaan tey maa ngi lay gërëm également di la sant ci invitation bi nga xamantene mo nga ma invité ci émission bi di amul nebo suma juumul ñaarel bi yoon mi ngi may jaar ci bi émission di la ci sant bu baax a baax di rafetlu aussi question bu njëkk bi muy wàllu téméri junni logement yi nga xamantene président de la république euh, ci biir politique am moom moo décidé euh, yëkkati habitat d'abord ci biir PSE bi jox ko gëdd ak cër gis nañ keroog bi muy def plan de relance économique bi muy PAP 2 bi ajusté gis nañu place bi nga xamante ne moom la habitat am ci biir des cent mille logements nekk ci pàcc bu am solo te nag tabax ku koy wax ci biir Sénégal te dugaloo ci SICAP du safe c'est évident parce que SICAP euh, juróom-ñaar fukki at mu ngi nii

sur le rythme de construction. Parce que nous 100 000 logements qui 5, ans. Moi, FAO, nous produire nous avons 20 000 logements à Et il y a que pour l'homme, il faut l'écosystème change. Il faut le mode de production change. Il faut aussi une haute organisation. Il y a des rythme qui ont été en train de faire Ce qui le ministre disait, créer une commission yi war ba président dajalé acte du secteur bi yépp def synthèse jël décision pour que nous mëna accélérer ko bobu non kon ñun bu fekké engagement de 100 000 logements nous avons fait 20 000 japp na né lolu moy suñu cër kon japp na né objectif bu ñëk mom moy 100 000 logements ci cadre contrat qui est lié à l'État du sénégal muy cdp bi contrat de performance yi l'État du sénégal nous avons réalisé 20 000 logements

mooy fourchette yi nga xamante ne moom la 100000 euh, logements yi permettre pour que ñu mën a wax ne que ñu ngi vraiment dans le logement social en tant que tel boobu prix avant subvention. waaw mais est-ce que am na woyofal boo leen ko woyofal ci wàllu payin bi ñu ni ko nit ñi mën a ñi ko soxla war koo mën a fayee. waaw ah, loolu xam nga am na solo ñu ciy wax parce que ñun boo xoolee tradition wu Sicap tradition location vente la mooy luwaasu njaay luwaasu njaay mooy tey bu fekkee ne am nga apport maanaam loo mën a dugal nga dugal ko. la ca des ñu calculer ko defar na ko ay ay loyer yoo xamante ne weer wu ne da ngay fay mm-hmm. bon mu doon weer te yow bu bu bu lim ba matee rek nga moom sa kër mm-hmm. loolu am na solo aussi ñu koy fàttali mm-hmm. loolu ñun mosuñu cee jóg mais nag am na loo xamante ne aussi VEFA mooy vente en état futur d'achèvement vente en état futur mooy dañ lay dañuy defar plan yi ba pare bu ci ndorteelu plan yi ca la ñuy commencé euh, won kër yi xarkanam yi ñu won ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy jënd ñu xam aussi fañ koy def waaye au fur et à mesure affaire bi di avancé lu ñuy gën di dem rek maanaam tey bu ñu defaree fondation dafa am looy dugal euh, bu ñu raser dafa am looy dugal bu ñu defaree bunt dafa am looy dugal bu ñu defaree volonté dafa am looy dugal ba keroog muy mat nga matal yow it daal di moom sa kër te mën naa nekk ci ñaari at wala ñetti at dafay dafay dafay dafay wu ci durée wu chantier maanaam lu doon loyer ay appel de fonds lay doon à chaque fois que ñu jot benn étape bu am importance

te li nga xamné mo euh, donc urbaniste aménagiste précisément waaw euh, te Diamniadio ñu bari nee nañu par exemple ni nga xamné non lañ fa défaré kër yi du zone bi du bonne zone bu adapté euh, coow li jubluwoon na fa walu souf ci nu mu nu mu bindoo logement yi fa jot def sax ñi nga xamné ñoko fa def am nañu problème muy promoteur yi pour gis sax ku ñëw jël ci kër no yooyu noo xam nga que ville nouvelle foo ko gis hmm. mooy pôle urbain bu bees war a am ñeenti arrondissement mun ñu ko tabax ci ñaari fan te mënul sotti juróomi fan euh, pôle urbain de Diamniadio sol bi wax lañ ci waxaat ci sol la boo xamante ne caractère hmm. mooy euh, dafa argile et dafa marne hmm. am ak marne maanaam suuf su weex la moom lañ koy wax te suuf su weex su nooy manam ce que ce que ça veut dire mooy que suuf bu baax bi nga xamante war nga ci mëna teud pour yéegal bâtiment hmm. da ngay gas lu sore pour mën ko jot hmm. loolu mo indi xëy na peut être wàqi bu am solo bi ñu war def ba paré bolé ci dafa am type de fondation yo xamante mo adapté ci milieu boobu suñu adapté ça veut dire que donc solution bañ fa wara appliquer am nañ ko mooy micropieux yi ñuy wax mais modèle économique bi motax modèle économique bi dafa basé wu sur construction en hauteur c'est-à-dire que tey boo nee à Diamniadio on enterre une maison pour construire une maison maanaam da ngay suul njëgu kër pour génne kër. Hmm, maanaam fondement bi daal. waaw day day day day tolloo day kër da ngay suul kër pour génne kër. Hmm. xam nga boo naree suul benn kër pour génne benn kër kooku ça veut dire que la ngay tabax. Hmm. bu dee pavillonnaire la ci c'est-à-dire maanaam ci rez-de-chaussée la yem wala R kooku day fekk vraiment sa loxo jot sa ginnaaw. mais bu fekkee ne éventuellement da ngay suul lu toll pour génnee immeuble. Mhm. bu boobaa aussi mën na rentabiliser donc modèle modèle économique bi moo tax mu basé wu ci modèle économique boo xam ne modèle économique en hauteur la mhm. pour ñu comprendre modèle mhm. mais sol bu nekk ci àdduna am na niveau de complexité c'est que niveau yi ñoo bokk niveau day am niveau bu gën a yomb ba niveau bi gën a euh, délicat. waaye tabax daal mën na faa ne. bien su que dafa mën a tabax ay tabax sax ña nga fa ngay wax. waaw maanaam est-ce que tabax ya danañu dëgër nañu war a dëgëree. non dernier dernier dernier dernier dernier conseil des ministres. bi nga xamante ne c'était le de relance jam jaajo lañ ko defee ci centre de conférence bi ñun suñu ministre muy ministère de semaine bu nekk ñu dem jam ñaajo fa la ñuy amee suñu réunion de coordination am na lu tolloog fukki ministère ak ñaar yoo xam ne fa lañ nekk le centre du professeur Mboup jam ñaajo la nekk dans le pôle urbain tey aujourd'hui ARENA am accueillir plusieurs événements xëy na mbas mi sax arrêté événement mais euh, FIBA def fa événement euh, am na événement culturel yoo xamante ne jot na fa am aujourd'hui le le euh, la plateforme industrielle la mi ngi tourné am ñoo carrément foofu la ñuy produire euh, la le centre des expositions faut le présenter prêter serment am na un événement yoo xamante ne dans l'artisanat na fa gis nañ que la garde des gros porteurs ak le marché international dans national daanaka pare ñu rendre leen fonctionnel moo ci des euh, am na hôtel boo xamante ne foofu dafay fonctionner à plein régime donc ça veut dire aussi que on ne peut pas dire que tey Diamniadio amul fii xëy na peut-être rythme bi mu war a jël euh, en tant que ville jëlagu ko mais gis nañ ne que par exemple les travaux du stade du Sénégal mi déjà, déjà reprendre na war a continuer xëy na peut-être ce qu'il y a à déplorer mooy retard yi nga xamante ne lu mel ne université. Euh, Amadou Matar Mbow jël na ko mais tay bu université Amadou Matar Mbow commencé dox euh ñen ñi nga xamante ñen ci ci ci promoteur yi mën naa tudd seen tour muy par exemple euh ak euh, ak Jetran ak Telium bu fekkee ne livrer nañu seen ay produits il y a déjà un bout de vie boo xamante ne dafay am au niveau de Diamniadio euh, je pense que germe du de de boucle du germe de ville bi muy li nga xamante ne mooy route bi war a ceinturer pour urbain bi defar nañ ko wàllu assainissement gis ngeen ne le délégué général Diène Farba Sarr keroog wax na ci avancé yi nga xamante ne am nañ ko ci je pense que axe 80 aussi muy beneen route bi euh, am na lu bëri loo xamante ne na ci donc on n'est pas amul inertie foofu xëy peut-être nak mën na accuser un peu de retard expliqué par plusieurs facteurs mais nak wax fa dëgg yàlla euh, pôle bi moom mu dox en tant que tel leen du mën a ñàkk euh, mu am ay quelques problèmes techniques comme ni mu koy amee ci yeneen zone yoo xamante ne c'est pas forcément peut-être lié au sol ou ça peut l'être euh, mais euh, il faut que le top affaire pour mën a xam li nga xamante ne moo nekk si ginnaaw. waaw li ñu gis ne sénégalais yi mel ni daal euh, sawaruñu ci li nga xam ne mooy jam ñaajo boobu ko jàngatee. waaw mais xam nga dafa war a ànd ak peut-être plus de communication parce que vraiment présent, jouer un rôle bi mu war vision am ko vision boobu noonu am ambition bi. Nous porter porté nous bi ambition aussi relever de défi bi léegi nag na ñu de telle sorte que nit ñi dans leur imaginaire ñu mën commencer réellement parce que déjà naa ne am sénégalais yoo xamante ne jënd nañu différents opérateurs peut-être parce que y a ay préalables yu ñu remplir en termes d'assainissement en termes de mise en service ci ndox mi ak pour que effectivement fof zone ya nga xamante ne ñoo war les premières zones de vie zone yoy wara mëna mën commencer dund motax damay invité Sénégalais Nous ñu reconsidérer seen xalaat ci Diamniadio te xamné avenir ça passe par là-bas parce qu'il y a pas que seulement Diamniadio hein. dafa am Diamniadio mais amna aussi pôle du Lac Rose te derrière pôle du Lac Rose amna na yeneen pôle yo xamante ministère bi mo koy gérer mooy euh, Diacksao mm. pôlu Yène pôlu Bambilor ak euh, euh, pôlu Déni Biram Ndaw ak pôlu Ndanga Xol mm. yooyu yëpp bu ñu ko boolee tey mooy yi nga xamante ne ci li ñuy wax triangle Dakar Mbour Thiès mooy principale infrastructure d'avenir lii nga xamante ne mooy des zones à urbaniser en priorité mm. donc damay invité Sénégalais yi ñu ñu ñu ñu xalaataat ñu xoolaat Nous bokat ci communication au pôle Nous participer pour ni nous loon participer suñu mënee nous souscrire parce que avenir bi fofu la ñettel ba mom y dina am benen infrastructure bu importante bo xamante moy mooy aussi accélérer xeyna phénomène bobu moy le train express régional parce que gis nañ ne que la la dernière fois président néna na nañu taxi lu tuti filé ki wér inshallah allahu rabbi mettre en service effectivement ce ce un important instrument de, transport et de déplacement humain.